suñ nee jigéen nag ñun yaay suñu xel ci yow lay daw ndax yaay xam nañ fi ñu jaar ak yow ndax yaay xam nañ coono yi nga jot ci ndax yaay xam nañu tey jii sa xalaat sa xel yépp mu ngi ci ñun kon yaay bu ñu lay sargal tey di sargal jigéen ci àdduna te yow mii yaay nga jul ci le mars kon yaay suñu tiitar la ci yow ñu feddali suñu kóllëre feddali suñu cofeel feddali suñu mbëggeel ci yow yaay boy say doom ñu ngi sàkku ñaan ci yow say doom ñu lay ñaanal nga fété ay eh, 8 mars yu bëré bëré bëré bëri yaay boy eh, mbokk internet prestige cs eh, ñu ngi leen di nuyu tey ñu ngi ak mama Adji sall mama Adji sall nak nek suñu wajur wante aussi juddu tey ji nga xam moy 8 mars ñu profité ti ñew nuyu ko sargal ko mama ñu ngi lay nuyu maa ngi fay bu baax maa ngi sama taabu góor kontaan ko torop jërëjëf maman nga nga nek jigen di dul 8 mars euh 8 mars nek bés bi nga xamni mom lañu jagalé jigen ci aduna bi yépp euh lan la la def. xana am ci fierté kontaan bu bu bare bare bare bare di ñaan ci yalla aussi ñu téy waat ko ay bu mars yu bare bare bare yalla ma ñu ci wër ci tura ak teranga bu mars nak mom ah pour jigéen la ñepp ci bëgg. di xay di mag jigéen li ñu digaleel ah yàlla na sax gën a saxati gën a saxati baaba dan loolu ñaan ci yàlla yàlla dafa ñu xéewal dafa ñu sutura dafa ñu teraanga loolu laay ñuy ñaan euh, bu ñu bu ñu déggee euh, yaay moom bu ñu ko waxee rek toujours dañuy xalaat doom euh, te 8 mars la ñu jagleen ko jigéen ñi yéen jigéen ñi yéen yaay yi lan ngeen di wax seen doom yi wax suñu doom yi moo di ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax fonk seen yaay yi surtout parce que yaay dafa foor ci doom ñu ngi wax ne soo amee joxal sa yaay joxal sa yaay joxal bu mu ñetti yoon doo du wax ne joxal sa baay donc yaay dafa foor ci doom donc li ñuy jagleel vraiment dafa loo xam ne dañ ko mérité ndax yaay dafa sonn ci doom trop trop trop trop yaay booy xam nañ tamit que euh, yaay nga am nga sa njaboot am na ñu nekk fii ci senegal am ñu nekk bitim réew ñu euh, ñu bàyyi la nga profité nuyu leen tudd leen nuyu leen. waaw d'accord maa ngi bu baax a baax. di naw di taaw di taaw bu jigéen Fatou si Mangane nekk Abidjan ak ñu nekk dakaar ay setu ak Macky Mangane nuyu naa leen ñoom ñëpp góor ngi nag. mi papa abdoulaye mbeng mi tok sama wet gora mangan pa mamadou mangan sant len gërem na len ndax te xam ngeen lan moy yaay yéen parce que tafu ngeen sen yaay japp ngeen sen yaay dimbal nga sen yaay man day sama dom yi sagal nañ ma sutural nañ ma yalla yalla sagal len sutural ci wàkkër soole ak bepp dom ngeen ne naal yéen ñëpp yaay defal ñu defal ñu islam ñu wër ak wër leen jërëjëf yaay lan ngay ñaanal suñu réew mi nag di Sénégal nga xam ñëpp ko bokk. jam ak salaam rek jam ak salaam pouvoir ko opposition nañu toog dañu waxtaan ndaxte fii jam rek moo fi xaj jam rek moo xaj Sénégal ah man da bëgguma fi benn fitna te yaakaar naa ne fitna itam du fi am ndax mag ñu baax ñu fi tëdd ñaan fi donc ma bëgg ñu àndandoo nekk benn waxtaan juboo loolu laay ñaan yàlla. jërëjëf yaay Boy ñu ngi doon waxtaan ak mère ma Adji Sall nekk euh, suñu yaay euh, dëkk fii ci Lazare ñu doon ko interroger à l'occasion du 8 mars ndax moom euh, jigéen la ba pare juddu 8 mars donc vraiment mu nekk un sujet important merci beaucoup Prestige.